jërë ngeen jëf kon niñ ko waxee woon ba léegi euh, ñoo ngi fii ci njabootu Serigne Omar Diop fekk fi kenn ci njabootam mooy Serigne Sidi Diop moom itam ndeysaan ngeen dégg kàddu yu am solo yi nga xam ne wax na ko euh, ñu nekkaat fii ba léegi ci biir euh, ndaje mi ñu fekk fi ay mbokku taalibe fu ne lañ bàyyeekoo ñëw di siyaare sëñ Abdou Lahad Mbacké moom itam di kenn di wëllëre Serigne bi moom itam ñu fekk ko mu ñëw. Euh, moom mu am ay kàddu yoo xam xam naa dinañu ko fu ñu fas yéene séq ak moom euh, sëriñ bi ginnaaw bi ñu la nuyoo Mbacke di la ziar baax la jox sa wàcc waay a billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la xawla wala quwata illa billahi al aliyyil azim euh, bokki jullit yi bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu bu baax jiital nuyoo bi xalif général des mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ñoo fa it ci kilifteegu sëriñ Saalix Mbàkke xalifab sëriñ Afiya Mbàkke Ahmadul Muxtaar di nuyu bu baax sëriñ Sidi Diop mi nga xam ne mooy nekk tey ci buntu kër maam Omar Diop mii ca Touba Kooba gi di nuyu njaboot gi fi nekk yëpp bàyyiwuñ kenn euh, maa ngi ànd ak euh, président commune rurale Xaasim Cissé nga xam ne moo nekk ni sama wet ak Babacar Ndiaye conseiller municipal. ñu ngi ànd ak soxna Xomes Pouy di soxna euh, président euh, chef de village bu Tooki Gaar. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. ñu defee nuyoo solo boobu nga xam ne ba pare ñu ñëw tey ci bis bi ñëw fii ci dëkk bi di Koba comme ni ñu ko waxee ñu fekk la fi nga ñëwoon ci ki nga xam moo di Serigne Sidi Diop euh, ce que man ñu am ñu bëggoon benn relation boo xam ne nii ko mag amoon nañ ko ba loolu jëpp su ma jamono ji euh, sët yi euh, ñu ngi koy doxal ba loolu moo waral tànk yooyu itam ñëwaat fii ak tànk dëkkandoo ak mbokk yooyu itam seen seen ki nga xam di Serigne Sidi Diop. loolu rek moo nu fi indi ndax. maam Amar Diop mi euh, nijaay la ci sama maam Soxna Fat Diop Soxna Fat Diop mooy jur sama way jur sëriñ Abdourahmane Matar Ndumbe di seen maam ñuy setu sëñ kokki mbokk googu moom laay dox ba ñëw fi tey jii euh, mag ñi nag seenu doxin moom doxin wu yéeme la woon parce que ñoo ñoo ñoo euh, société Sénégal ñoom ñoo ko ñoo ko boole ñépp benn lañ daara joo fi gis fu mu fi mën a nekk ci réew mi mbokk la fa nekk càllalee ko ngay topp ba ci sëriñ Touba ñoom ñëpp benn lañu àndandoo woon doon benn taxawu diine ji taxawu yoon wi ba yoon wi egsi fii mu egg tey loolu moom loolu rek laa la ci mën a seeral foo fi gis ab seex wala ab sëriñ ci réew mi daal nanga xam ne ñoom ñëpp benn lañu rawatina fii ci Kooba nag nga xam ne ñoom mbokk ñëpp lañ yaakaar naa ne kër Sëriñ Touba wala rakki Serigne Touba yi boo génnee ñi sant Diop daanaka mu jeex ah, man mii di wax ak yow sama jur wu jigéen Diop la sant sama wayjur sama wayjur bu góor it yaayam Diop la sant kon boo ma fekkee ko ba Diop daanaka mën nga ne sama kër nga ma fekk noonu la demee sëñ bi nag li mu wax fii moom ci àll la ko waxee nit ku ne da ngay am foo xam ne fa ngay toll ndax koo xam ne nee na moom mi ngi seen takkusaani yow mal xiyam loolu beneen mbir la. kon moom moo ko moom moo ko moom moo ko xam te noonu ma ko waxee noonu la ko gëmee noonu la koy doxee waaye li wér ci wóor rek mooy Sénégal ñun ñu fi nekk ñëpp rek niñ nañ ko ci dëgg ak gëm yàlla nangoo wéetal yàlla nangu dogali suñ borom suñ ko defee rek ñun ñëpp dañuy noppalu dëgg wéetal yàlla ak nangu dogalu suñ borom suñ ko defee rek ñëpp dañuy noppalu ñu daal di ne ci jàmm kon nag yàlla nañu yàlla defal loolu bu baax a baax a baax. bi ñu fi nekkee ba léegi mboolem li mu wax ak ñun lépp waxtaan wu ñu neex la ndax kenn kennal yàlla moom dañoo war ñun ñëpp bàyyee suñu bopp suñu borom nga xam ne lépp lu ñëw rek ci dogalu yàlla la ñëwee te lii it moo waroon a ne ci kii loolu rek moo moo moo mooy war jamono ji ñu ngi wax ba léegi mi ngi am ba léegi ndax la doon existe la la la la doon dox ci jamonoy mag bi ba léegi ndax sët yi nga xam ne ñoom ñi ngi fi a nekk ba léegi ni waxee ndax comme ñi nga xam ne jàpp nañu loolu doxatul comme ana yan kàddu nga am yoo xam war na yoo ne ñu ngi koy taataan ngir ñu war ko xamal euh, adduna bi walla réew mi xamal leen ndono ba léegi mi ngi taxaw ba léegi. waaw ndono moom mi ngi taxaw ba léegi xëy na ki nga xam ne doon na wut dara mënu ci wax dara. nit nag lépp loo xamante ni dundoo ko waroo caa mën a wax ndax dara leeru la ci mi ngi mel ne tey ma doon beneen religion ma bëggun caa dugg te dund ma ko du ma leer waaye man bir na ma ne ndono mi ngi mi ngi dox ba léegi ndax ndono bu fi jógee deret jóge fi ca deret mënta ñàkk deret ñaata siècle la am ak fan la jaar ci ay nit la jaar ba egg si ci yow man xam nga sët laa am naa presque ay nangami maam maam yooyee kan xanaa seen deret jóge na fi man mënuma gëm ne ndono jóge na fi gëmuma ko sax it lépp loo xamante ni nii loo daan def euh, samay kilifa lañ mu jaral leen fanaan cëb dar ngir yow loola jortu naa ne ñun ñi egguñu foofu ñun ñii képp koo xamante ni dem nañ ba war a fanaanal la cib dar wala yooyu buñ ko buñ ko mettee suñu yaram rek bu ñu mettee suñu yaram rek nga gis ko dëruluñu ko sax ay fanaan ci der di julleeg yi ni mag ñi daan def ndax mag ñi defar nañ lépp li may wax nag lu naqaree dégg la ndax nit mais li may wax nag lu naqaree dégg la ndax ñu bëri duñ ko xam wante loo xamante ni man maa ko dund moom laay wax lu ma leer la leer na ma ne man boo ma tooñoon tey sama ndoonoy maam bu ma yërëmut mën naa la jàkkaañ ca doo ma jaral julli doo ma jaral wér doo ma jaral def dara na ma naqaree rek ma yëg leer na ma ne it am na ci sëriñ si ñoo xam ne tey maanaam lépp lu dugg seen nopp bi suñ borom faj ko téere bi ñu lay jox nga takko ko wala saafara si ngay sangoo it loolu yëpp dañ la koy jox rek ngir teg ko ci sa bët. loolu mooy baatin baatin du yi xew léegi xam nga waaw yi xew léegi moom wax dëgg yàlla man ay montage laa ko jàpp xam nga loolu moom man loolu moom leer man yaakaar na loolu laa ko jàpp yi xew léegi daal man montage laa ko jàpp ndaxte alxuraan dafa doon loo xam ne nii dara da ko gënta foor ci àddina te boo déggee ñu ne kaamil mooy asamaan ak suuf asamaan ak suuf lépp a ngi ci léegi nag bu ñu lee kaamil mooy waxi suñ borom te suñ borom lépp lu am lu ne moom moo ko amal yow mi nga xam ne dangaa saxoo jàngal xuraan sax ci ak njub lépp luy tooñ sa borom doo ko def luy tooñ sa morom doo ko def jot naa ne alxuraan jooju loo ca ñaan yàlla def jëru sax nga ci ñaan boo ko doonnoo ci say waajur say maam ñëpp jàngkati alxuraan lañ woon say waajur ñëpp jàngkati alxuraan lañ woon kon yow sa jëm bopp boo saxalee loola rek day mel ne lool mbir ma day feddali ko ci yow man dama koy faral di wax yenn nit ñi dinaa leen di wax ne leen yéen samay doom sax dama leen koy wax dama leen di wax ne leen na ngeen ma moytu ndax man sama sama sama baay wàllu yu la samay maam wàllu yu lañ te yéen man maay seen baay ci man du ma wàllu kon léegi man sama doom wax naa ko leer nee naa ko nag ma moytu ndax man sama baay wàllu yu la ca yow mii nga xam ne maay sa baay man du ma wàllu yu kon moytu loolu ba léegi ndoonu moom mi ngi am ci nit ñi ñu ngi koy def man maa ngi koy yëg bu baax. léegi gis nañ ne ñenn ñi fi nga xam ne ni ñu ko say wax yenn sëñ yoo xam ne dañu abandonné maam ni ñu koy waxee mooy dañu abandonné seen dëkk maam yi pour euh, ay ay ay messages yoo xam ne ni pour ñu dellu si waat ci kaw bi ci dëkk yi nga xam ne fi la seen maam yi nekkoon donc comme jot na yéen ñi nga xam ne ay seetu lise ngeen ngeen ciy àddu. waaw man de fi sama maam dëkkoon fi laa dëkk wala boog fi mu amoon daara fa laa dëkk sama wayjur wu góor dëkkoon fa laa dëkk maag samay. doomi baay ñun ñëpp fa lañ dëkk yaakaar naa ki nga xamante ni nag juddawut ci àll bi yorewut ci àll bi ngir mu dëkk fi dana jafe waaye ñun ñii ni nga xam ne ñoo dëkk fii ci àll bi ndono liñ fi doon mu leer na nuy baatin bi moom yëg nañu ne baatin baa ngi fi bëgguñoo dëkk Ndakaar man de bëgguma dëkk Ndakaar xam naa ne lu nit di am maa ngi koy am fi ma toog ah bu ma la nee bayu ma góoru ma njabaru ma it nag sëriñu la sar du ma sëriñu dara te am na ay am naa ay am naa ay kër am naa ay soxna am naa oto de toog moom muy dox sax xëy na ndax toog muy dox moom dafa doon loo xam ne nii xay na loolu lu gàtt la daal loolu toog muy dox moom ma ko nangu ndax man damay yar yare ginaar nag du ma leen nëbbu damay damay yar ay ginaar damay liggéey waaw waaye nag sonaluma kenn ci jox ma addiya sonaluma kenn ci sama tool yii bu ngeen ci ñëwut mu booy man doxuma ci loolu waaye képp koo xamante ni lépp lu ñuy liggéeyal ab sëriñ la ca nga koy def ci yàlla tax soo ñëwee ci man Abdou Lahad mii ne ma dama la ko bëgg defal ma ne la bisimilah waaye nag toog muy dox moom man defuma ko. xam naa ngir jeexal euh, euh, xam ne mooy nit ñi ñu tool yi euh, ne am mbas am na lu ci réew mi am na am na taw ñu ne am na. jamono waaw ba tey it euh, xam nga yàlla suñ borom moom bu nee ci yow ba noppi mbas ak tawat ak yooyu yëpp du su ne sam xel xam nga ñun lan moo ne suñ xel nan la ñuy def ba nit ñi jullit gën a doon ay jullit taalibe yi gën a doon ay taalibe liggéeykat yi nga xam ne dañ doon liggéeyal yàlla suñ borom. gën a mën a doon ay liggéeykat yàlla ñun loolu moo ñu gën a ñor mbas mi moom amuñ ci benn problème xalaatuñ ko sax li ñuy ñaan daal mooy yàlla na ko fi yàlla jële ni ko fi yàlla indee yàlla jëlee ko fi noonu moom loolu moom danañ koy ñaan toujours waxtu wane ñu ngi koy ñaan waaye nag yàqaluñu dara ci suñuy tool yàqaluñu ci suñu wëgg suñuy nag ak suñuy xar ak yooyu yàqaluñu ci dara dañuy ñaan daal yàlla jëlee ko fi béykat yi nga xam ne ñoo ne ci taax yi ak yi ne ci biir réew mi yëpp fu fi waay man di nekk même ba ci ñi ci biir ñii ci biir réew mi te ñu duñ ay baykat sax te am lu ñu mën a dimbalee baykat ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaan ñu jàppale baykat yi ndax it itti woon nañ ko te li ñuy bay yóbbu yóbbuwuñ ko bitim réew fii ci réew mi lañ koy jaayee amu fi lenn loo xam ne fii dañ ko fiy bay di ko yanu di ko yóbbu bitim réew wala boog doonoon baykat yi li ñuy bayee fii ci réew mi waa réew mi moo koy lekk te yàlla suñ borom nee na ci alxuraan soo dundalee kenn nit mel na ne dundal nga nit ñëpp waaye boo reyee kenn nit mel na ne nga nit ñëpp te baykat li muy bay nit ka cay dund am na ñu cay sosoo ak njaboot njaboot googu yeneen njaboot la ñuy sos yeneen njaboot di ñu sos kon li yàlla wax baykat bi moom mi ngi ci kon ñu ngi soññ baykat yëpp ñu gën a góoru ci tool yi bay dugub bay ñebbe gerte gi jërul rey sa bopp luñ ci am rek ñu yem ca gerte bokk na ci li tangal baykat ci Sénégal ak état te jaru ko nañ bay dugub ak ñebbe ak bisaab bii lu am njariñ ci nit la bi ginnaaw bu ñu la nuyoo ñu ngi lay jaar euh, tey ñu ñëw fii ci dëkk bi di Kooba euh, mën naa ne c'est la première fois ñu ñëw fi mën naa ne sax wala dëkk bi sax tey lañ koy doog waaye nag tey ñu ñëw fekk ci sëñ Sidi mu am ay kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkat na ko fi yow lenn ci jege ñaar nga xam ne sëñ Sidi ginnaaw bu ñu la nuyoo. auzu billaahi rajiim bismillaahi rahmaani Sëriñ Tuuba Xaadimu Rasuul ah li nga. laaj am na solo lool ndax euh, ñun de sëñ siidi mi nekk fii ak magam ja nga xam ne jiitu na di sëñ Cheikh Diop yàlla na ko buur yàlla sedd ca àjjana gën a kowe ah dañoo doon suñuy wóllëre ah sëñ Cheikh moomu doonoon lépp ci sëñ Sidi wax na ko fii sànq moom mi ngi génn àdduna ci juróom benni fan yi juróom-ñaari fan yi weeru koor bi kon euh, loolu ba mu amee ba léegi yàlla def ñu tëju woon Dakar mënuñoo ñëw tey ñu ñëwoon fekke si bis bi nga xam ne ah, bis bu rëy la ci sëñ Sidi ndax euh, tuut tànkam bu wàññeeku amoon fu mu ko féete ah, mu doon bis bu rëy ci moom ah, ñu ñëw doon leen jaale si a doon it ñëw ci bis bi ndax ñu nag sëñ Sidi a lu yàgg la ndax man jiite woon naa fi communauté rurale bi 2009 ba 2014 muy sëñ Sidi ak waa kër gi yëpp doon samay wëllëre loolu it continuer ba léegi ah dëkk bi it comme ni ko waxee doon dëkk bu mag dëkk bu am daraja ah, boo xam ne xëy na yéen a ngi fiy soog a ñëw waaye bari na ci senegaal gi kilifa yoo xam ne ñëw nañ fi guddi ba tàyyi te ba léegi continuer di fi ñëw ndax di fi sàkku ñaan bay dem na ba ci waa diaspora muy Italie muy Allemagne fu fi waay nekk boo ko ne kooba xam na ko ñi ne foofu sax ñoo ko gën a xam kon la tax ñëpp mànkoo ne yow la loolu dafay wane ne yow la ah te sëñ Sidi ñu di ko wax bàyyi Sidi wax ji mu wax fii doon wax ju rëy te doon wax ju dëggu ndax man man naa koo firndeel xawma ñaata yoon laa toog ak moom léeg-léeg sax maa moom rek ñooy toog waaye wax bii mu wax fii tey saa yuñ toogee loolu la fiy wax lu jëm ci yàlla rek man loolu laa gëm saa yuñ toogee loolu lay wax nga ànd ak ay kilifa nga ànd ak yow dong mbooloo taxaw muy bisu bànneex muy bisu naqar toujours dañuy dëkkal rek ci suñuy nopp ne yàlla mooy lépp te dëggit moo sax du jay kenn du nax kenn du wuruj kenn loolu lañu lañuy jàngal a ah, te ñu nit ñu di ci jéem a góorgóorlu ah, kon bu ngeen ñëwee fii tey defe naa ne loolu moom lu ngeen di war di def la ah, ndax dëkk bi ku mel ni kii sëñ Sidi nit ñi dañ ko war a xam nit ñi dañ ñoo war a jàng ci moom a kon nag defe naa ne yéen tànk yi ngeen dox ba ñëw ah yàlla mi am fay yàlla na leen fay Euh, référence léegi dafa jafe ci am na ay ay am na ñu mel ne comme ni ko wax ñoom sëñ Sidi hmm. message ngay wax ci jamono ji ndaw ñi nga xam ne mel na man fi ñu toll nii bi ma ciy wax rek euh, man wax dëgg yàgg naa koy wax ndax man professeur laa bu dem ba retraité euh, lycée Lamine Gueye laa nekkoon kon ndaw yi daawuma jóg ci di leen wax ne leen nit bu mu fàtte fa mu jóge nit bu mu fàtte cosaanam nit dafa war a am royukaay te Sénégal buñ xoolee royukaay yi bari na muy ci diine ak ci lu mën a doon rek am na ay homme de référence yoo xam ne ñu ngi fi ñu war leen a roy wañ a war a roy seen jikko te bañ a topp li ñuy gis ci tele yi eh, li ñuy muy ay film ak ay lu ne wala njaaxu ñoo xam ne yii suñuy maam mësuñu koo xalaat ñu di ko jéem a roy kon defe naa ne ndaw yi loolu lan war a daw te lay tàmbali ba mooy fonk fa nga dëkk ndax man mi wax ak yéen loolu maa ngi ko jànge ci sama baay ndax daf ma daan wax ne yaa ngi Dakar de waaye defal Dakar ni ay tool ba looloo tax sañu moo woon fàtte fii am naa kër Dakar waaye terewul am naa fii kër dama fiy ñëw ndaw yi nag xëy na ñu bari loolu moo leen manqué buñ jógee rek na nan dem tuxu ji am nan mooy nan bàyyi fii alors que nit barke ba muy war a am mu nga jóge ci cosaanu baayam cosaanu maamam surtout rawatina nag àll bi ndax taax yi bu doxee àll bi moo koy doxal mbay mi moo koy doxal kon daal tànk yi ngeen fi def yi ngeen fi def ren yal na ngeen ko mën di ko def ay ati at te buur yàlla defal ñu wér defal ñu ay xéewal mbas mi fi nekk buur yàlla jële ko ci senegal jële ko ci àdduna bi ndax tënk na ñëpp waaye nag nan ko wékki rek ci loxo yàlla ku ci warut a bokk doo ci bokk waaw ma ni li ma ciy dolli waatit ni noppi woon naa sax waaye dafa am lu ma ciy war a dolli yéen ñett ñii ngeen xam ni ñëw ngeen fii indi fii lii te kenn mësu ko fee indi jarul ma di leen jox dara bu ngeen demee ba bis bii del si waa déwén te gën a leen bis bii ngeen dikk tey bu ngeen di dikk indaalee leen ma sàngara ma naan ko ba sëñ Tuubaa waaw tolluwu maag ba la ma leen a jëriñ dara di leen defal dara allah xera laa gàddu lu nit dara waaye fii de giñ naa sëñ Tuubaa ni mënal naa fi nit dara lu ma neex